dama doon bëgg a leeral presse bi leeral Sénégal yëpp pour ñu xam ne bi ma nee cinq millions d'emplois lay créer dafa koo wékk ci xam-xam bu sori ñun dañ ne richesse su Sénégal dafa weng lépp nekk Dakar te li ko def mooy loo bëgg ci Sénégal da dem Dakar booy tukki Dakar ngay dem booy wuti këyit entreprise Dakar ngay dem loo bëgg rek Dakar ngay dem ñu ne nañ fexe ba région yépp am capital régional bu dynamique loolu bu amee économie bi dina tasaaroo kenn du du demati Dakar wala ñu nekk Dakar sax ñooy ñëwaat fii pôle régional boo xam ne nii man président de la république dama fay nommer un ministre d'état boo am ay pouvoir yu am doole mu jàppale mairie yi jàppale chambre de commerce yi jàppale association jigéen ñi jàppale ñëpp nga xam ne nii mooy seen guichet unique loo soxlaati da ngay dem ci moom moom moo koy toppatoo fii wala mu woo ministre bi koy def mu ñëw toppatoo ko te loolu da fekk région bu ne. nga xool la fa nekk ci ressource nga booster ko nit su mënul day wax ne mënuma mais ñun dañoo expérimenter ay ngir def ko am suñ compétence yàgg liggéey bokkuñu koo xam ne nii administration la administration moo ko jàngal moo koy fay weer moo koy def lépp te bu génnee loxoom ci moom boo ko gisee mu walaa kaana xanaa mu sàcc xaalis waaye bu sàccul xaalis boo ko gisee nday wala kaana kon nag ñun ñi nga xam ne nii liggéey lañ xam te def résultat ñu xeeb ñu ñun ñoo war a wane ne ñun ñoo fi majoritaire te loolu bu ma ko waxee day yaatu parce que fonctionnaires yi ci Sénégal matuñ cent soixante mille matuñ cent soixante mille te ñoom sax dañoo ami jafe-jafe ndax ñu ci ëpp ci ñoom dañuy am compétence bi war ci am Serigne Mbuub wala am Demba Ndiaye dem fee wax ba mu wax ba bëgg a dee ñu nommé ko ministre wala ñu nommé ko directeur mu ñëw il faut que mu liggéey loo compétence yi mu jël leen yàq leen ba duñ mën a def dara yéen ñëpp xam ngeen ne coowal yi fi amoon ci Kaolack te dañuy doon bëgg a defar rek buñ nekkoon parti pouvoir wala ñu nekk parti opposition duñ ko mën a def ndax dañuy am pression boo xam ne nii dañu ko def bu kenn yaakaar ne ba muy wuti mairie Kaolack lii ñuy dal te di ñu dalaat ëllëg te man ñoo dalaat suñ bëgg a liggéey prévoir ma ko waaye buñ nekkee ci dëgg coow li dana bari bari waaye du am du am du am résultat négatif parce que boo nekkee ci dëgg kenn mënul dara ndax yàlla moo ne falaa tax naa naasa wax saw nii bu leen ragal nit ñi ragal leen wër naa Sénégal nag gis naa lu ma jaaxal trop ak lu ma metti ngoon jot dangay ku ne di bàkkoo la ma mobiliser dafa mel ni nit ñi dañuy coppataan seen bopp di ree ndax kat koo fi gis mu mobiliser bu bari ñaar rek la ñaar rek parti opposition parti pouvoir ger nit ñi andi ay oto sonal leen ñu taxaw waaye xam ngeen ne mbooloo mu nekk fii di taxaw di yuuxu defuñ ko ngir yàlla bu dee opposition bi dëgg la mën naa am joxuñu kenn dara waaye nit ñu ñàkk yaakaar ñu liggéeyul ñu seen yaakaar tas ñooy daw seen gannaaw nañ ko bañ a namoo nag nañ xam ne ñooñu amuñu liggéey seen yaakaar a tas yàllaa xam kuy gañe mais kuy gañe nga xam ne ñaari weer walla ñetti weer duñ la ko may te danañ dal sa kaw kon nag lu waaye di diggee na nga digge looy def ëllëg di leen feddali ne sa réew mi rek laa bëgg su ma gisoon ci candidat yi ku ma tane yàlla xam na ne mën naa am ma def ni ñoom la Habib Sy def ne ko dem naa ci yow ndax du ma sonal nit waaye lii ma gis ñoom ñëpp laa wax ñoom ñëpp ku ñëw ma jàngal la économie te xam nañ ko sax ñoom xam nañ ko bu baax wala seeni kilifa wala seeni kilifa xam na ko Macky Sall xam na sama compétence Ousmane Sonko xam na sama compétence ñeneen ñi ci des nag waxuma kon nag kon nag man sama compétence laa gëm comme na yonent yàlla Yusufa waxoon inni hafizun alimun waaye laqatuma ci gannaaw kenn naan diw mooy diw diw mooy diw man Serigne Mboup laa def naa ñu gis kon nag dénk leen ñu ñu yóbbu dëkk bi fa liggéeykat yi bëgg gars yi wax rek la ñuy def defaguñ dara buñ defee dara nañ ñu ko war ñu gis ko jërë ngeen